Euh, barab bi nag barab bi ñun ñëpp a ko bokk ni nga ko waxee ñiy wax ni jàkka def ko investissement bu yàqu la xamuñu li xew parce que nit bala moo baax bala moo mën a yëngu bala moo mën a liggéey bala moo mën a créer richesse day defaru nit bu defaruwul sax du créer richesse boo gisee nit jékki-jékki faxastalu yem ci benn business boo xam ne bii opération culbute la seetaan ko ñetti fan rek mu ñëw taxaw yelwaan ndax dafa defarwul te fii day defar néeg yàlla day defar nit parce que nit bu fekkee ni defaru jëkkul ci moom lu tàbbi ci moom rek dina ko ñàkk ak lu mënti doon kon kuy xalaat ni néegu yàlla investissement perdu la xamuñu lu ñuy wax bi ñuy gas fii jëkk di def remblai di def ay micropieux yoo xam ni def nañ fi lu jigéen mille cinq cent micropieux xale yi fi nekkoon rek xam nga xale yi bëgg sëriñ bi bëgg liggéey nekk fi di sikkar mu nekk ay groupe bu xale yi Baay Faal war nañu mat cinquante wala téeméer ñoom ñëpp fi lañ jàng métier ba bokk ci ñi gën a xarañ ci defar micropieux dañ leen di yóbbu ba beneen ñuy am ku ci am na ñoo xam ne six cent mille la ñuy fayee ko sax te daawuñu xëy am mille francs